jërëjëf mbokki amateur làmb yi jaajëfal nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci stade Diop Iba Mar Diop ki ñu fi woo di Assane Ndiaye Assane Ndiaye Baol production bis bu neex dox ci diggante Mame Balla mi nga xamante ni mooy borom top 5 gars yi xam nañ ko ci làmb stade bi def na fi lu nekk muy bëre kan mbay guy gi combat spécial yi ci dëkk dox ci diggante Gakou 2 ak Boy Dakar mu nekk combat boo xamante ni combat bu neex la dina am ambiance drapeau kii démb drapeau démb drapeau bu neex la démb jooy na xol bi sedd na am na kontaan ku ñuy tuddee te drapeau ci jigéen dañ lay tàkk barki yéen yow da ngaa neex da ngay da ngay sa xol sedd na waaw mais daf maa mere nag ndax gisuma këram moo tax mu mere ma yàlla xam na mere ma yow sama xarit nga. maa ma teel moo sol lu bulali moom la ñuy wax Bada Jonn. Bada nuyu naa ci loo ne. maa yaa ngi am jàmm. waaw sant yàlla baax. ngeen waajee indi mbay guy. non mbay guy gi tey Bawol sans frontière a ko om. daa doon kuréel goo xamante ne nii Bawol gépp danoo booloo ma nekk président bi. mu boole juróomi écrit yi nekk Bawol gépp juróom benn écrit sax parce que Robosa ngi ci Plateau ngi ci écrit Colobane a ngi ci ñoo ñëpp bu ñu doonee benn doon ay bokk nekk benn bokk ay supporters normalement mber bu taxaw xameetunu écrit ñu dikk accompagner ko tey bés bi war naa mën a demee nii te loolu la ñu soxla woon te yaakaar naa réussir nañu ko. Mame Balla ñëpp xam nañ ko ci stade Diop Iba Mar bari na yoo xamante ne bëri na fekk ñoom am ci ndam lu rëy borom top 5 lañ ko tuddee woon ngir jël yu rëy. muy bëreeg mbay guy gi tey nan ngeen yabee mbay guy gi pour mu bëreeg moom. waaw borom tap 5 la ko tudde woon ca jamono yooya mais jamono yi daa am ñeneen ñoo xam ne ñoo fi nekk nekk borom top 5. parce que yaakaar naa boobu léegi mot na 10 ans te kii 95 la juddu. kon daanaka amut lu nuy xalaat ci moom lu dikk rek appliqué dem suñu yoon loolu rek. léegi nu muy def day xeex wala day bëri. non lu ma mbala andi rek mu andi ko kii. fi mu toll bu ko maam bala naaree tardel bu yeboo tekki ngembam parce que pare nag kii normalement Reug Reug la war a mën a bëreet Franc kii même bu ñu bu fekkoon ni tey Lac de Guiers ñoom bala ngay talal nañu ko loxo man aw ma lu ma ci xalaat parce que daa am foo xam ne boo yàggee ànd ak mber bu fa mber tolloo bu ko ragaloo parce que man taxaw naa fi fekkee zalloo bi muy bërek maam njambaan amut poids bi booy bi am amut doole ji bi muy boreeg Bombardier noonu nga xool bala Gaye numéro 2 bi muy daan Bombardier tolluwut nii nga xool Eumeu Sène bi muy bëreeg ay Souley Toob ak ñooñu tolluwut fi booy bu toll gëm-gëm la rek mer bu ko kenn ragal loo xale lu xelam nekk rek na appliqué. to bii mooy sama combat. combat bi su ma ko moomoon grand combat laa koy def fii kaay kaay parisien ngi noonu ndeysaan moo war a laale Calcio parisien. waaw wala boog. nuyu naa la. maa lu bëri bëri. li nga sa bopp bi laal waaw lii en tout cas waa Fass ñoo jox. waa Fass waaw. da am calcio. war a laale tey keroog arène nationale am na lu jotoon xew seen signature contrat tey da nga daa loo ko guuxal wala da ngaa fas yéene bëre ak moom. ko lu gën a pire loolu laa koy def tey. waaw man Fass laa juddoo nag. je suis né xeex ak moom. non dañuy xeex dañuy bëre. mu ngi dépensé nu mu toll. ah loolu de problème man dama ko dàq ay ay général ay Lamtoor ay Isma te ñoo ñoo gën a diis fop waaw waaw. loolu du dara ñu Fass lañ dëkk nag dafa écrit Fass lañ nekk. boo ko woo ci lan nga woo xeex wala lu mu bëgg rek ñu dem su ma tegee lu ma wuyu rek ma wuyu ko nañoo ñu ay làmb day sang ji néew ndax ay mbokkam yëpp ay sangkat néew la yàlla ju ci yàlla musal ñun la xam naa ni vraiment moom li mu bëggee jël opté ko def ko muy métier ah du ma ne du métier de waaye garaaw na de xam naa ni gàllaa ji bëri na. ndeysaan Kalso Kalso waaye sant yàlla baax waaw waaw waaw tey lépp di leer bu neexee yàlla mi dogal na am na lu mu la guuxal bu arbitre sifflé rek mu gaañ la yàlla baax na waaw nee naa la woon jinne moom mag dëmm te loolu jërul wax magum jëmm maa ngi gërëm waa parcelle gépp nag ma kenn barki Seydina Mohamed ñëpp gars yi ma àndal ñii ñoom giroo ñoom bàyyiwuma kenn sama rakk yi taxawu nañ ma barki Seydina Mohamed bi bëri na de ñaata nga def ci ngemb non yàlla baax na loolu laaj ko gars yi laaj ko laaj ko Lamine boo ko laajee la ko wax mais kontaan naa ci yow Kalso ndeysaan gis nga gars woon gannaaw Rago ak Amsa di leen fàttali journée Assane Ndiaye Baol production la fii ci stadium Iba Mar Diop dama gaaw ci Elimanel Fall de waaw waaw Elimanel Fall ak njaareem boobu loolu sama stand yaa ko moom ko ko kenn tàmm laa la lay ndeysaan wallahi ca mi maas borom SBT média gi noonu ndanaan la day di filmer waaw waaw Drago ak Amza ca biir gaa lewaatoo ñoom ñaar di deme wet waaw waaw Amza dagg na lewaatoo ga mel jaabu golo léegi jógaat waaw waaw cokkaas na wante dalul ndeysaan cey ajaa ndikku cuun waaw waaw Drago Amza attention Amza door na gauche droite dox ci kaw Drago dooraat na Drago jël na tànk ba war na ko ndombo war na ko ndombo war rokos waaw waaw ma ngay loxo ya buddi na ko ba ci kaw door ci suuf laa ilaaha illa la Drago daan na Amza war na ndombo Amza bu dëkk ba ca kaw door ci. laa jógee depuis par ba léegi la ma topp. bi mooy sa ñaata combat. mooy septième combat. ñaata victoire. benn bi kenn ka jël bu ñu ko jël. avance bi kenn ka jël bu ñu doo jël. ñenn personnes ka daw la kaay kii. kii moo doon sant ma boo di ko gërëm. comme bay ma bëree moom ma ka doxal. li nga bëree ak moom ñëwal ma ci. xam nga entraîné combat bi. comme ça la coono yee métti. arbitre bi ngeen bëree. sama sama entraîneur moo ma teyal mu toog lu ko la boo ko toxaloo pare ko soogaa bëri loolaa bëri nag conseil rek laa bëri yàlla may ma ndam di gërëm sama entraîneur bi bu baax a baax a baax lépp la loo gis sama rek ma ko def sama ama fayam bilaay yàlla yàlla fay xolam rek ndeysaan jaajëf Adama Kaay xool baa ngi noonu mbay guy gi moo war a bëre grand combat bi moog maam Balla def na open press def na ay cimikaayam entraîné na bis bi na waaye tey ñëw na war a def li mu war a def mbay la grand champion mbay nuyu naa la. maa lay fay. bis lu mu laaj. dal rek tey jox ko cër rek ba jàpp ko daan ko incha allah. ñëpp nee nañ maam Balla magum làmb la ci yow. est ce que est ce tey booy bëreeg moom di nga ko sédd cër bi mu war a. dañ koy jox cër bi ba yàlla def ñu jàpp ko jàmm daan ko incha mooy la jox cër mooy tey rek ba gis lu ñu war a def def gis lu ñu def bañ koo def. ak bëre ban moo la gën. lépp lu ñëw appareil naa lépp. moom Balla daa mel ni mu ngi ci waaw coono ñun newuñ ci dara ñun ah déet waay. ñun newuñ ci dara. mystique bi bari na lool lan la. non combat bi mooy lool noonu. lépp lañ ci def. ñaata nga ci def ci xaalis. lépp laa ci def lépp. mën na 2 millions. barke Serigne Bamba ëpp na. ëpp Bamba xam na ne ëpp na ko. barke Arxuraan. li waaw. mais loolu dara ndamañu ko gënal quoi. moom moo laaj loolu wala combat bi moo laaj loolu. non combat bee ko laaj rek. combat bi moo may yóbbu ci kanam quoi. tey kon baax la ba ci kër. jaajëf dam kaay Adama. naa. sant yàlla. mbaa yaa ngi tey lu mu laaj. tey dal. gis ni. Mame Balla depuis combat bi taxaw ba léegi gisuñu la yaa ngi làqati sa ruq. dafoo open press génnoo dafoo benn sorte lan la. waaw consigne rek consigne la rek lamb ñëpp xam nañ ma. bëri France ñëpp xam nañ ma lu may wane sama bopp dama bëgg a jëlaat sama mbay guy gi ma gis mystique bi bari loolu ma ne ko ñaata nga def ci combat mu ne lim ci def ëpp na 2 millions waat na ci yàlla yow loo ci def sant yàlla mam bala ndongo daara moo ñëwaat taalibe laa dama doon jalwaan mam bala boobu moo desiwaat si làmb rek di nga xeex ak moom taalibe kenn mënu si moom dara ak moom sant yàlla bay naa lépp mam bala xam naa dama bëgg combat bi man dama leen ci xel. Adama. combat bi am na fu mu ko toll. làqatu na ci ay ruqam. kenn gisu ko. kenn xamul ci lu mu nekk waaye ci kanam tuuti dinañ xam Mame Balla ak Mbaye Gouy ñoom ñaar kan moo ci dàq bëre kan moo ci ëpp doole kan moo ci gën a entraîné dina feeñ léegi ay yaaw jaal li mu takk ci ndigg li Sokh 2 Omzo Adama Yawou Dial takk na téeméeri ndomba ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci yu ma ci ndigg li laa wax Omzo ña xeex ña xeex Omzo ngay xeex ak Sokh 2 Omzo xeex door na ipekut dinañ génn saako yi ñoom ñaar Sokh 2 Omzo Ndeysaan ñu ngi noonu Sokh 2 Omzo ñaari xale yaa ngi noonu lan moo nar a xew Sokh 2 Omzo Ndeysaan ñoom ñaari gi noonu Sokh 2 Omzo Ndeysaan ah combat bi neexoon na waaye xeex bi ma ngay bëgg a yéexal lu bari waay Sokh 2 ak Omzo ndeysaan combat bi du yomb Sokh 2 ak Omzo ña nga ñoom ñaar lan moo nar a ku nekk a ngi déglu moro Sokh do Emzo lamb jaa ngi noonu Sokh do Emzo ah waay Emzo yaa Sokh do xeex leen xeex bi bëre bëre bi dem ñibbi lamb loolu la soxla ndeysaan loolooy lamb Ndeysaan génn nañ saako yi. sox nga door de sox door yu garaaw la yor sox jël na tànk ba sox nee na coppat tànk ba lu mu def ay ca kay riñaan ma ngay daw moom waaw waaw da oh waaye mais sox mi lan la eh am soo am soo ngi dox ci kawam mais sox mi lan moo ko dal tànk boo ko jëlee da liggéey waaw waaw. ña ngay jàppantey loxo ca suuf soq de soq de ak Omzo waaw waaw combat bi léegi mu war a jeex de moom arbitre soufflé na Ardo attention Ardo waaw waaw ay ci Mansour arbitre soufflé waat na ayca Mansour arbitre ba suuf la waat na diggante ak Sokh 2 léegi nag war naa mën a gaaw war naa mën a jeex Omzo ak Sokh 2 arbitre suuf la na waaw waaw temps bi dafa jeex dafa mel ni Sokh 2 la jox victoire bi mel ni Sokh 2 la ñuy jox victoire bi waaw waaw Sokh 2 lañ jox victoire bi Sokh 2 jël na ndam la wante Balaba ki nga xamante ne moom la Assane Ndiaye dara jaale bis bi mu ngi noonu di yegg muy le ministre des sports monsieur Ba ndaysaan moom mi nga xamante ni lépp ci làmb làmb delloo nañ ko njikkal làmb sargal nañu ko promoteur yi sargal nañ ko amateur làmb yi sargal nañ ko moom monsieur le ministre Adama topp ko gis ngeen délégation bi mu àndal Adama ndaysaan muy ministre xamante baax woyof yaatu mën a nañ ko ci Matar Ba ndaysaan mu ngi noonu. booy mulam attention. booy mulam booy mulam woon gannaaw mooy borom ngemb lu ñu ñoom bay ngemb lu ñu doxaat ci koom. booy mulam moo leen. féetee càmm malum. saal kese moo leen féetee. saal mulum mulum. mu ay waay wii tur waay attention Sambulam jël na kuur daw na yooru daw na yooru ay waay daw na yooru Saal Kassé booy fàq na booy Mulaam jël na tànk bi booy Mulaam Saal Kassé nar la ilaha illallah dama koy kan booy Mulaam daan ko waaw waaw Malum daan ko booy Mulaam daan na Saal ko daan na ko ba toog ca kawam jugal ci kawam hee làkkat la làkkat amul caaxaan ndaysaan gis na deretam boo weddee laajal Ahmed Boutique du gis deretam làkkat <laughs> bu gisee deretam du bàyyi ndaysaan booy mulaam gis na deretam fete càmmoñ parisien moo leen fete ndi joor kaso moo ëpp tuuti ndeysaan parisien cokkaas na parisien cokkaas na parisien Calcio Calcio ak parisien ay waay xaw ma sax li may reporté ndax tiit li may reporté xaw ma lan la daa wex ndaanaan la Calcio defal ndànk Calcio mépp na daa nar a dóor Calcio cokkaas na parisien cokkaas na parisien cokkaasaat na ñoom ñaar du yomb parisien ak Calcio Calcio du ko bëgg a jàpp parisien xeex mooy avantage am ci combat bi ndaysaan boo buggee dégg dëgg dama tiit xamatuma lu may wax ndax suñu mbër koñ mooy bëre Calcio mi ànd nañ dem fu ne ba ma demee Gàmbi këram laa nekkoon ndaysaan di fa jaabante cokkaas na mbëram Sénégambia cokkasoo dóoraan na kalsoo ma cokkaas ma ngay sànni kalsoo ma ngay sànni ndaysaan parisien kalsoo tànk yi taxawatul ndaysaan ñoom ñaar kalsoo parisien parisien dóor na ña xeex Kalso jàpp na ko yóbbu na ko daanuwul kaay nga doon buy pare si koy wasifaal. ak parisien dañ koy Kalso. Eh, Kalso na ku. parisien mooy bandi. Kalso jël na ku. parisien door na ko. parisien na ko. na ku. attention mooy door. Kalso amul gàmm neex. Kalso eh. parisien. parisien ardo. dem na ardo parisien ñëwal faju. oh. Kalso dem na ardo. Calcio moo ñëw ci Ardo. Calcio dem na Ardo. Calcio suufu r bi moo ubbeeku. waaw waaw Calcio dem na Ardo. Calcio ngi noonu borom Parcelles Assainies. ay waay tey suñu koñ xam naa ni kenn lekkatul naanatul sama meeru koñ ya ndeysaan sama yaay xam naa lekkatul naanatul Calcio ajal sa garde bi waa lii lan la parisien mu ko neexee ndeysaan da koy dóor mu daanu dóor mu daanu dina am dina ko dóor mu daanu Calcio faywul faywul parisien ngi dugg nu mu ko neexee di génn nu mu ko door loolu la dóor mu daanu dina am Calcio ngi dox ci koom Calcio ngi dox ci koom parisien koy xoolee dóor yi baaxul Calcio dóorul dóorul Calcio dóorul loxo ba wàcc na Parisien Calcio jëli na ko dóor na ko Bekit Calcio sonn na sonn na de mënatul ba yëpp yuuxu na ni muy ñoo faral Parisien Calcio oh. combat bi metti na ci moom Parisien jël avertissement Parisien am na deux avertissement attention eh waaw mais waaw mais Calcio mi. ma ngay door Calcio. Calcio lu ko dal. Calcio waaye Calcio mi vraiment sama xarit bi. waa Calcio doo baare. Calcio loxo bi sax mënatul aju. Calcio baareel. ooy Calcio na. ndeysaan suñu waa koñ ñëpp a ngi taxaw ci tribune bi. ndeysaan Calcio parisien. ndeysaan Calcio Kalso sonn na sonn na waa Kalso mi lu muy def nii waa waa jeex na kay day demaat ardo day dem ardo parisien am na ndam ci kaw Kalso jox na ndam li parisien Parisien am na ndam. maa ngi gërëm xalaat di gërëm Père Ousmane Ndoye di gërëm Ousmane Noël Dieng waaw ak doomu ndeyam Ameth Saliou Dieng maa ngi leen di gërëm bu baax baax di nuyu Père Abbas Ndoye di nuyu gërëm Père Abbas bu Colobane kenn téléphonique aw ma fay loolu la may jàppale Khadim Fall Khadim Fall Codé xam nga Cheikh Bara Ndiaye Mor gars yëpp dama kontaan ñoom dañ ma logé Colobane ne kenn du dugg suba ak ngoon non dama dama war a bopp nee naa leen bulldozer laa war moom laa war a bëreel. mais lan moo tax ci biir bëre xeex bi rek nga bëggoon ak moom. waaw parce que perkat daf ma ne poids lourd la dee ko dóor par benn gauche gauche te déchargé woo nga soog ñëw sonk euh, bëre moom fa laa jëmoon sax mais comme temps bi dafa xaw kii te moom mën dem na bu matu moo tax jox fi temps mais dama doon ñëw sax bëri si kaw benn moment saa yu nekk ah, nag dañuy jàng lépp kilifa yi nekk dañuy jàng lépp naa la mere nag yow Parisien mere naa la trop. da nga mere ma. Calcio ñoo bokk benn koñ. nga jàpp ko dóor ko def nii kanamam bi neexuma. waxoon naa du mën a ñàkk parce que dafa ma am lu ma def signature ba. jël sama alal yóbbu ko. te lii rek laa ko mënoon fajee. seen faj nga ko. non faj naa ko bu baax sax nee naa la dama ko lu gën a pire laa koy tegal. bulldozer laa soxla bulldozer. bulldozer benn bulldozer benn xam nga mënu fas warul laaj parce que ñun ay nomb lañ dañuy war di laaj. mais bulldozer dama koy laaj bulldozer laa soxla. bulldozer laa soxla. Eh, guy gi noppi na xale bi jekk na ci làmb de boo ko gisee mu ñëw nga xam ni yor na bindu mbër yor na ci koy mbër yor na style mbër moom mbay ndaysaan ndaanaan la gis nga ko mu ngi noonu di iti réew ndaysaan mu ngay def ay mise en moom mbay guy gi gis nga gis nga woon ko ma nga noonu ma ngay dem demal yéen a ndeysaan waaw waaw buñ nee borom Iba Mar ñëpp xam yaa ko moom loolu yàlla moo ko dogal tey bis bi loo yëg liggéey rek moo liggéey moo wóor maa ngi nuyu Sénégal yëpp nuyu diaspora bi yëpp adduna ku liggéey ku ñàkk jariñ ñoo nga ko de ma miin dama bu baax waaw. soo si la nekk. ndeysaan bàyyi ak yàlla. waaw dama daal bu baax a baax. ñoo gisee Iba Mar ni ko Assane Ndiaye. waaw mais kii bisam yow xam nga bisam bisam du yomb ma ngay sant di ko gërëm nag gis naa nu may jàppale mais yàlla dina ko jàppale wax dëgg yàlla. bu mag la ci bis bi jàpp na ci bu baax a baax jox ay millions yu bëri billaahi. sa diggante ak ministre des sports Matar Ba ñëpp xam nañ ni doom la ak baay seen diggante yéen ñaar. sama doomu ndey la sama xarit la senegal yëpp xam nañ ko ñaanal ko yàlla yàlla taxawu ko yàlla jàppale ko jaajëf. ndeysaan arbitre mu ngi noonu ba tey ñoom ñaar ñu ngi xeex Petit takk na ko. Ziza takk na Ziza takk na Petit ba daal. lu nar Ziza takk na ko. Ziza eh. nañ ko. Petit Niang bañ na daan na ko Ziza daan na Petit Niang. Ziza daan na Petit Niang. Ziza daan na ko. la ilaha Ziza daan na Petit Niang jël bu rëy waaw waaw da dellu sul ma ci façon bëre bi nga bëre ak Petit Niang waaw xam nga Petit Niang maa man waruñu woon bëre du ma moroomam saa man 19 combat laa def peut-être nekk si tolof tolof ak pare moon moo tax mais maa moom lam boolewuñu dama mel ni bi arbitre sifflé dama gis ni daf la xeeb ñàkk a xeeb boobu moo ko jural lii xam nga xeeb na Moussa waxoon naa ko nee naa buñ bëree pare ngay comprendre bu ñu bëree pare lay comprendre. sànq dama gis nga koy tàllal loxo mu bañ a jël sa loxo. daa réew xam nga man ku ma saaga ndey ma duma la. jeex jàmm saaga na ma duma ko gay naa ko saaga na ma ma duma ku ma saaga ndey man sama yaay rek la am waaw. daan nga Petit Niang fan nga si kaw na nga xaar. yàlla danaa la ko wax da nga may ñëw jël ñu yokk si. Ah. donc eh, invité naa la suba ñëwal ñu wax. mu ngi kër gi ngembali di jooy lan moo ne ci ngembali mbànkaane jooy. instant yi xabta la koy def Adama day def nga yàqamti day def nga gaaw a jooy Tapha Tine noonu la ci làmb day yàqamti day gaaw a jooy lu sa bis di di ñëw ngay gën a yàqamti sànqkatu néew yaa ngi noonu ndaysaan ndaysaan mu ngi noonu di ma ngay jooy de wàññi leen mankaane sotti leen ndox ci ngemb li Adama mu ngi noonu di jooy ndeysaan mu ngi noonu di jooy Mbaye Gouye Gui lan lay jooy Mansour Mansour Mbaye Gouye lan lay jooy Mansour dem na ba ci càppaandaw ga muy jooy lu muy jooy lamba ngi ndeysaan lamba ngi ah ana ana giroo ne ko mu ngi noonu xamoon naa Guiro Seras di la xamoon naa ni Guiro Seras di la ñëw moo taxawoon Guiro Seras Nokia kaay Guiro comme barki sëñ Nokia Guiro Seras combat bi taxawoon na daa yàqu Nokia Guiro Seras ndeysaan ngi siyaar bu baax nam naa la. maa daw sama invitation bi waaye du ma la wax. yow sama waay ga dañuy déggante man Bawol moo ma ñor Bawol moo ma andi tey di ñaanal mbiri Bawol yi yu bëre yëpp yàlla man aw ma lu dul Bawol quoi loolu a wax. dafa am sa combat bu taxawoon sa diggante ak Giro Seras ñu dem ba ci digg bi ñu ne combat bi yàqu. Petit Niang kii bu ku ci daan naa la. Petit Niang sa waay mi. Sisa daan na Petit Niang. Sisa soxlawu ma ko man laa bëgg a ay booyu tàng. mooy booy booyu tàng combat bi ku daan wala ku daanu. booy Dakar. ay ca Mansoor waa. arbitre bi ngi noonu booy Dakar a ngi noonu. Oh. waa je sifflé. booy Dakar xoolal ma lay waay. ndeysaan Boy Dakar Petit Niang la mujjee daan ak Gackou 2 Gackou 2 moo mujjee ngeen jàkkaar lool jaajëf am na lu mu ko sànni saa bi sifflé na mbokk yi ku ñuul Gackou 2 Boy ñu ngi noonu ñoom ñaar boo Dakar moo boo ñu won ñëwee nañ wet ñëw nañ côté bi Gackou 2 moo la féetee ndijoor booy Dakar moo la féetee càmmoñ ndaysaan ndaysaan nee na ko taxawal day bañ ku do xale yi ci lamb day mel ni ku la ragal la Gàkku 2 Boy Dakar. def kii ak gis victoire. Boy moo def 10 combats 10 victoire. ah Boy Dakar moo def 10 combats. Boy Dakar mooy yéen waaye Gàkku Gàkku 2 bokk na ci xale yi xam ñoo gën a tëj ci làmb kii Doudou Bakar Sarr. ak kii Doudou Bakar la war. Gàkku 2 moo ngeen boo fi nga xam moom mooy Balla Gaye. daa waree écurie Balla Gaye ñu may cokkaas na tey dóor na kuubu dal gàkk doo Boy Dakar Boy Dakar dóor na kuubu dal léegi da ko remise Boy Dakar moo leen féete càmmoñ gàkk doo moo leen féete ndijoor dóoraat na Boy Dakar gi dóor nu ko neexee Boy Dakar pànk la daa pànk génn na saako yi waaw waaw day ñëwaat arbis day ñëwaat gàkk doo Boy Dakar arbitre bi sifflé waat na ñu ngi demee wet. gàkku doo booy Dakar la ñuy jàkkaarloo moo tent bopp bi. gàkku doo booy Dakar. gàkku doo booy Dakar. gàkku doo booy Dakar. gàkku doo booy Dakar. jokkaas na. gàkku doo booy Dakar. gàkku jokkaasaat na. dóoraat na. jege si nañu jege si nañu. Gàkku dee Boy Dakar Massamba. Mass mu yomb ñoom ñaar. na foog na Boy Dakar doon problème tey. door na ñu lay fayu. dinañ xeex. tàcc jaagal takkar naa se Boy Dakar door na Gàkku dee door. Ndeysaan génn na saako yi. Boy Dakar daa mel na. Boy Dakar am mooy quinzième combat. kaw Gàkku dee. Mass yaa topp xale yi fu nekk. dem nañ wet ñëwaat. ñaari xale yi dañoo xas loo gis nga booy Dakar li mu def léegi gëmu ko Gackou 2 da koy indi ba ci kaw Gackou 2 nga ragal ko gëmul loolu la koy woo Gackou 2 booy Dakar booy dóor muy génn bërekat la gën na la daa bëgg Gackou 2 bëri mu bëri ci na ko daje nañu booy Dakar dóor na Gackou 2 dóor na attention kur fe yaa takkar naase ñoom ñaar ku ci nekk ah, muy dóor sa ay kuy daw Boy Dakar li mu def gëmu ko ragalu dee. ñaari xale yu pànk la. stratégie la def Gackou 2 daa pànk. feem lay teg. Boy Dakar daa pànk. ñaari pànk ñooy xeex. Gackou 2 gi dox ci kaw. door na daw na jiw jàppante nañ door na ko perkit. ña ngay xeex jël na ko Boy Dakar daw na jàpp. Boy Dakar jël na jàpp. Gackou du ko bëgg a jàpp. ay baayant waat nañu. gala yaa ngay dëkk. ci SBT Média. Gackou Boy Dakar. maa la wax loolu. ñaari xale yaa ngi noonu ña ngay jàmmaarloo gàkk door Boy Dakar lu mu nar door na ah Boy cokkas na gàkku sa fe sa garde bi ferme ko baaxul dooraat na Boy Dakar ngi door nu ko neexee waaye cross long lay door ay korosolo lay door woo ci xeex bu mu gëmul may ko may ko waaw may ko may ko may ñoom ñaar kenn gëmu ci xeex ñuy naxante attention ku nekk ci nekk sokk na Daku doo na Boy Dakar sokk na Leewtoo baa ngay gaaw gis nga ay ca ñu ngi noonu ñu ngi noonu ñoom ñaar ñu ngi ma ngay xeex ma ngay door Boy Dakar Daku doo booy Dakar attention Kawo Gakou door na booy Dakar door Ardo bakkanu Gakou door booy Dakar dooraat na booy Dakar a ngi door Ardo arbitre bi gisul deret arbitre bi gisul deret dooraat na ko arbitre bi gisul deret dooraat na ko caatu rëbës dooraat na ko dooraat na ko atte nañ kaay leen Gakou daw na Ardo booy Dakar dafa bëgg Gakou dëkk yóbbu na ko Ardo am na droit avertissement xeex nañ ci arbitre na diggante caatu rebes dem na ardo Gackou 2 ak Boy Dakar ñu ngi noonu ñoom ñaar caatu rebes dañ ko daal diggante Boy Gackou Boy Dakar tibb na suuf Boy Dakar Gackou 2 arbitre da la ko arbitre bi su la waat suuf bi lay bañ mu jóg. Boy Dakar gàkku dinañ xeex ñoom ñaar dinañ bëre. ku ci nekk dem na Ardo ñëwaat. Boy Dakar dem na Ardo. attention gàkku dem na Ardo Boy Dakar. ñaari jàmbaar lañ. Eh, attention dañu Dakar xeexaat na. day xeex nañu ñoom ñaar. gàkku door na door na. gàkku doy cokkaas na. naan ko bàyyi suuf si. ngara Boy Dakar ku ko andi dafa Boy Bambara. Boy Dakar gàkku jegente nañ waay samp yoo ko andi kon. seen tànk yi jegente nañ. gàkku daw yu seen loxo yi jegente woo nañ. dinañ xeex ñaar. xale yu mën a xeex mën a bëre. da. mën xeex la ñoom ñaar. Boy Dakar ndeysaan ñoom ñaari xale yaa ngi noonu déglu wante jàkku cokkaas na Boy Dakar 10 combat 10 victoire jàkku kanam gi neewi na léegi 10 e gàkku doon day jël avertissement Boy Dakar signalé na 4 avertissement Boy Dakar jël na avertissement arbitre bi sifflé waat na boo amee 5 avertissement perte combat bi Boy Dakar avertissement waroo woon génn waroo woon génn Boy Dakar jokkaas na Boy Dakar gàkku deux Boy Dakar gàkku deux Boy Dakar na dem songu boo génnaatee dem si boppam eh, door na Boy Dakar door door na turaat dugalaat na beneen. dooraat na Boy Dakar eh, na. ma ngay xeex Boy Dakar na ko jël na ko. Boy Dakar jël na ko. jàpp. Boy Dakar gàtt. Gàkku 2 Boy Dakar. Gàkku ñoom ñaar. jege nañ saako yi. ñoom ñaar dafa baax. ñoom ñaar. Boy Dakar bu génnee saako day am cinq avertissement. te bu amee cinq avertissement dañ koy disqualifié. man man fa jàpp boo yéexee doo am lu noonu kon baa ngi noonu. Gackou 2 Boy Dakar. daa bañ a génn caxabal ba ñoragul. waaw waaw. ñu ngi noonu ci combat bi. bu koy génnee. da koy génnee. waaw waaw. Boy Dakar bi na. Gackou 2 dem na Ardo. Gàkku doo génn na Boy Dakar Boy Dakar demal. waaw Gàkku demal faju. waaw waaw. ndeysaan kin kin tëj waaw waaw waay làmb ngi ndeysaan arbitre bi sifflé waat na combat bu métti ay ca maa suur arbitre bi sifflé waat na waaw ñoom ñaar ñu ngi noonu yaa bi ne président bi soxloon Boy Dakar Gackou 2 Gackou 2 Boy Dakar ñu ngi noonu door na ñoom ñaar ñi ngay jokkaasante ku ci nekk na ci combat bi Gackou Boy Dakar lu ma leen waxoon waxoon ñaari pànk ñooy bëre ñaari pànk du yomb ñëwal dóor na Gackou 2 Boy Dakar Gackou 2 Boy Dakar mu xale ñu ngi noonu ndeysaan làmb gi ñaari xale yaa noonu ñëwal kaay ee eh. door na ko jeex na jeex na cinq avertissement ndeysaan Gackou 2 jël ndam Gackou 2 jël na ndam Gackou li ci kaw Boy Dakar Gackou 2 daan na ko baa ngi noonu Assane Ndiaye production ndeysaan quatrième le dimanche 4 juillet stade Iba Mar Diop drapeau ministre des sports monsieur Ba moom mi nga xamante ni fu ne Wassare Wassare ngi noonu ci wet ja Bawol TV Kewel Info TFM ndeysaan am na butéel bu muy sotteekoo ci kaw ki ko tingom moom mbay guy gi mu ngi noonu ah xaw ma ba xam deux millions yi ëpp na deux millions li mu wax moom la def ci mystique waaye bu ko ëppul jege na ko de xam naa ne mystique bi bari na trop mbay guy gee ngi noonu ndeysaan ndax xëy dafa guddi waaye tey ñi amateur yi ñëwee ak li ministre bi defee tour d'honneur amateur yëpp du taxaw tàcc ko waaye li ministre des sports bu ñu bu dundal waaye ku dundal sport la ak nag ba dara loolu oh waa kër Mbaye Guy Gee ngi noonu waaw waa kër Mbaye Gouye Gui gi noonu ooy c'est joli waaye c'est magnifique waay waaye li mooy lamb spectacle ci la bokk ambiance ci la bokk animation ci la bokk lamb nga doon suñu aada la ñoo ko moomal suñu bopp. waaw waaw supporter Mbaye Gouye ngi noonu. lii nag bokk na ci liy xabtal mbër bokk na ci liy dooleel mbër bokk na li tax mbër di xam li mu bàyyi ginnaaw ñii bokk na ci ñuy dooleel mbër lamba ngi mbay guy gi ñii la àndal waaw waaw ñoo bokk fi ñuy taxaw arbitre bi nee na kaay leen

moom Balla gañe na pile bi toj na nen mbay guy gi toj na nen ñu ngi noonu arbitre bi ngi wax ak ñaari mbëri mu leen wax li règlement bi bañ ak li mu nangu ndaysaan asad yaay nan ku ne xam na diggante nag ay de boy ñu bokk dëkk Bawol yaay Aïda Mbodj moo génn àdduna ñu bëgg arbitre nga soufflé ñu def une minute de silence jagleel ko ko ko xam ne mooy waajuru Aïda Mbodj Aïda bisu bi ayca ñu ngi noonu ci grand combat bi ndeysaan may leen ñu présenté ay bañ may leen leen ngeen bawol gépp jug nañ yuuxu Medina gépp jug nañ yuuxu Mambalaan ndeysaan arbitre bi ngi waajo ñu wax li règlement bi ak li règlement bi dox ci diggante Mbaye Gouy Gui ak Mame Balla ñoom ñaar a ngi wax na ak ñoom ba pare Mbaye Gouy Gui reculé na may na distance Mame Balla arbitre bi nee na ko kaay benn avertissement pour Mbaye Gouy Gui daa am lu mu sotti Mame Balla arbitre bi laaj na ay siisam laaj na Mbaye Gouy Gui ay ca laaj na Mame Balla nee na pare na laaj na Mbaye Gouy Gui arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 4 juillet 2021 stade Iba Mar Diop il est vingt heures vingt six minutes tey jii ci arène nationale Bawol production moo ñu fi woo boole ñaari xale mbay guy gi ndaysaan moom bu écurie ba da joon ak Mame Balla ndaysaan bu Pikine wala bu Géejawaay ñu ngi noonu Mame moo leen woon ginnaaw moom moo moo def morceau bu weex bi ci bopp bi mbay guy gi ngeen jàkkaar lool moo bari takkaay mbay guy gi cokkaas na Mame taxaw na mbay ki ngay bëreel ndaanaan la ci làmb ki ngay bëreel champion la ci lamb l'expérience face à la ñoom ñaar kan mooy daan mbay guy gi dañ koy corriger wala mbay guy gi day xuus jëm ca kaw ayca arbitre bi àtte na arbitre bi siflewaat na mbay guy gi ngeen jàkkaar lool Mame Balla moo la wan cokkaas nañ drapeau Matar Ba la ndaysaan le ministre des sports ndaysaan moom mi nga xamante ni lu ne def na ko ci sport rawatina lamb Matar Ba moom la Assane Ndiaye ñi dal Baol production tuddee ba lamb ji stade bi fees na ñëpp nee nañ tekk géwal nag ngay dégg géwal rek kay way géwal rek kay tëgg ndaysaan dégg ngeen mbay guy gi maam Balla mujj ñoom ñaar arbitre bi nee na bëre leen Mbaye Gouye Gui concentré na Mame Balla daa bëgg a mu indi mu xeex Mbaye Gouye Gui indi xeex mu ni bëre Mame Balla cokkaas na Mame Balla Mbaye Gouye Gui Mbaye Gouye Gui ci tànk yi la jëm lu ma la wax téere ci tànk yi la jëm day cokkaas rek daw jëli loolu bëreem la Mame Balla daa mu nee tànk Mbaye Gouye Gui tàkkaasaat na maam Balla mbay guy gi gis nga lu ma la waxoon jëli na ko maam Balla bañ na mbaru tànk la mbay guy gi jàpp na sëkk na ci geñoo mbay guy gi rogan na guddo maam Balla jàppul fenn mbay guy gi loxo càmmoñ bi jàpp na loxo ndijoor bi a maama wala jàppul fenn ndeysaan ma nga ma nga góor mais jamais déet. may guy gi. nee naa la Pape Thialis war naa yokk. mbëru tànk la moom Mame Balla liggéey ngi tourné Mame daa téye loxo bi daa téye loxo may guy gi. ndaysaan loxo beeg téere yi la boole. ndaysaan. dégg ngeen tëggkat yi. mu ngi gën a baral tëgg bi. www.lamb sport point com. waaw waaw. baral nañ station mbay guy gi jàpp na ba ngay faxat maam Balla bañ na mbay guy gi maam Balla ndenge ñeen nañ bañ na ñoom ñaar mbay guy gi maam Galla faxat na ko mbay guy gi rëcc na ndaysaan maam Balla mbay guy gi maam Balla amul fu mu jàpp mbaytul mbay ki ngay bëreel ndaa naan la maa ngi nuyu Zos borom Brésil sama xarit yi Babacar Espagne sama waa ji moom maam Cheikh Mbaye Séeri ndeysaan may nuyu Pape Gueye ndeysaan Séeri Aji Gueye Khadim Diop Séeri Ñanga ndeysaan sama xarit yi maa leen di bu baax gaa yaa ñoom ñaar ndeysaan Mbaye Guy gi ak Mame Balla ñu ngi noonu Serigne Faty nga xamante ni lamb rek la bëgg boo demee ma nga ca Brésil di seetaan lamb ji fii ci wasaare lamb ñoom ñaar dinañ xeex mbay daa bëgg a dóor mbay guy gi Mame mbay guy gi ngi dóor ci suuf ndeysaan ba da jono ngi noonu toog Mbaye Gouye Gui ngi door Mbaye Gouye Gui ngi door Mbaye Gouye Gui ngi door Mbaye Gouye Gui ngi door Mame Balla fayu na Mbaye Gouye Gui ngi door téere yee bari Mame Balla ci téere loxo yi la tee ci téere loxo yi la tee Mame Balla ak Mbaye Gouye Gui Mame Balla ci téere loxo yi la tee ndaysaan mbay guy gi ak Mame Balla ñu ngi noonu du ñoom ñaar Mame Balla sol na mbay moytul li ci làmb ji Mame Balla sol na mbay guy gi guy ak mbay guy gi Mame mbay guy ndeysaan jàppante ne ñoom ñaar dara xewagul ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaari xale yi boppa oh, deñ na ma xam du fekkee coono borom téere bopp mam bi deñ na ndeysaan ñu ngi noonu Mbaye Gouy Gui galaaj yi dañoo bari da combat bi ko moo tax ci la Mame Balla mooy tey ci ba mu dëgër bëgg a def li mu bëgg a def dëkk na mais ndeysaan du yomb ñoom ñaar Mame Balla Mbaye Gouy Gui ndeysaan noonu fu ñuy mujj ñoom ñaar Mbaye Gouy jàpp na ba mu dëgër Mame Balla Mbaye Guy Gui ngay door waaw waaw ndeysaan ñu ngi noonu gi Mame Balla Mame Balla Mbaye Gouy Gui expérience la jeunesse Balla boo ko jiitu lamb moom Mbaye Gouy Gui gëm boppam la ndeysaan Mbaye Gouy Gui si Mame ngay moytu waaw waaw door na Mame Balla ngay moytu ndeysaan kañ la ñuy tàqali koo ñëwaat. loxo bee jàpp. loxo bee jàpp xeex am bëre. ci mikaay mbay guy gi kenn toogatul waaye ci mikaay maam Balla kenn toogatul. fay fële ca Brésil nag a ngi taxaw di xool. ñu noonu ndeysaan. ñu ngi noonu doon nay doon na léegi. ngi noonu ñoom ñaar. lamba garaaw mbay guy gi maam mbay guy gi maam mbay guy gi daa bëgg dóor maam dafa bañ mbokk yi combat baa ngi noonu cey promoteur da jël ñaari xaal da jël xaalis jox ñaari mbër ñu dem préparé nga def promotion ci wasaare lamb lamb ju réussir nga ñëw fii ci stade Jom Iba Mar yëngal ko ba mu yëngu soo paree dem tëdd lamba metti ndeysaan lamba metti na ci promoteur yi lamba metti na ci mbër yi lamba metti na sur la presse ndeysaan mu ngi noonu Mame Balla Mbaye Gouy Gui jàppante bi yàgg na Mbaye Gouy dóor na Mame Balla Mbaye Gouy Gui Mame Balla Mbaye Gouy Gui ñoom ñaar ñu ngi noonu ba tey Mame Balla Mbaye Gouy Gui Mame Balla Mbaye Gouye Gui maanaam wut wut ñu noonu ñoom ñaar ah. Mame Balla Mbaye Gouye Gui ndeysaan ñu ngi Iba Mar Diop cey Leewtoo TV lamb rek la leen di toppal arbitre bi àtte na mbay guy gée ngi tekki gàllaaji gàllaaji dañ koy xatal arbi bi sif lewaat na waaw waaw mbay guy gi maam Balla mbay guy gi moo la féetee càmmoñ maam Balla moo la féetee ndi joor ndeysaan arbitre bi atte na woowaat leen ñoom ñaar gi noonu Balla ndeysaan la jege si nañu Mame Balla cokaas guy gi Mame Balla waaw waaw Mame Balla cokaas na dinañ xeex ñoom ñaar ñi ngi lewaatoo ndeysaan bay guy gi ñu ngi noonu mi na tàkk di déglu Mame guy gi day dem de mbay guy gi door na mbay guy gi day dem de arbitre mbay guy gi door waaw waaw arbitre waaw waaw ndeysaan waaw waaw arbitre sóoraaleel li ci sa gannaaw mbay guy gi daa bëgg a xeex mbay guy gi Mame Balla ci tànk ba la waaye Mame Balla mbëru tànk la moytul cokkaas Mame Balla ngi cokkaas Mbaye Gouye Gui ngi cokkaas daw na jëli tànk ba du baax Mbaye da lay gis Mame Balla da lay gis Mame Balla rasu mën a bëre mbërëntaan la combat bu yàggee Mbaye Gouye Gui la Mame la arrangé Mbaye Gouye Gui dugg na Mame Balla fi mu daan nga maay moom loxo bi mu gàll ci kaw guy gi Mame Balla du ko gàll ci kaw ndax gàll bi baaxul mbay guy gi Mame Balla woon maay moom loxo bi da koy dugal ci biir ngemb mbay guy Mame Balla jàppul mbay guy gi jàpp na mu ngi koy buux mbay guy gi mu ngi koy buux mu ngi koy buux mbay guy gi Mame Balla mbay guy gi gën naa jàpp day jóg Demba Ngor na ko ba ci kaw. Mbaye ci ci suuf. Mbaye Gouye daan na ko Adama jërëjëf mbokk yi nga xamante ni yéen a safa wasaare lamb di ñu seetaan mbokki yi fu waay nekk ci réew mi ak bitim réew gis ngeen li wolof naan doolay jën ndox doolay way public doolay amateuru lamb yi yéen la doolay doolay wasaare làmb yéen la suñu mbokk internet yi ñu leen di jaajëfal bu baax encore une fois fu ay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey gis ngeen Mame la ak ki nga xamante ne mooy mbay guy gi bëri nañ combat bu rëy fii ci stade Iba Mar xale bii di mbay guy gi daan Mame la Mame Balla làmb nii la saa su ne boo ñëwaan fii ci jërëjëf mbokk yi loolu lañ leen jëlaloon bëre bëre bu rëy ci arène nationale ñibbi mu nekkoon journée Assane Ndiaye borom Bawol production tey bu la xale quatrième édition muy mbay guy gi nekk xale boo xamante ne day percé jëm ci kaw jaadu na ci làmb mbay guy gi ñu koy encouragé waat bu baax wala ñu koy félicité di encouragé mbaa bu mag bi moo doon ci diggante Mame Balla mbay guy gi ñu koy félicité tey gis nañ bi mu dugg see nga xamante ne bi wane na beneen xar kanam ñëw na tuus tuus wu rëy indi bu bari mais bëre bi da koo teg ci yoon ndax na maam Balla bëreeg moom ndànk-ndànk ba bëreeg moom ci li nga xamante ne loolu lañ doon xaar ci mbay guy gi ba daan maam Balla ndax ñu bari yaakaaroon ne bu arbitre ne prip mbay guy gi day dal ci kaw maam Balla waaye gis ngeen làmba ngi noonu wanewaat na boppam mbay guy gi daan na maam Balla mbay guy gi fan la jot mbokk yi di leen jaajëfal bu baax ci ànd bi nga xamante ne yéen a ngi koy ànd ak wasaare làmb sama gars yi bég naa ci yéen dee leen abonné di laal notification bi ñu leen di gën a indil yu bees bàyyi jiile Adama di leen jaajëfal sama gars yi let's go wala boog